ñaanal nag euh, waa Sénégal ñu am jàmm parce que jàmm moom mooy tax ñu def activité sportive jàmm moom mooy tax ñu mën a dund te kenn du am lu la jaaxal. bi nga xamante ne président la république son excellence Macky jël na ndogal ne démb journée day nationale la woon pour ñu ñaanal ñi nga xamante ne dañu loru génn àdduna ci yëngatu yi fi amoon ci fan yi ñu ñaan yàlla bu loolu amati ñu jiital Sénégal te bañ a jiital intérêt personnel. su ko defee ñun ñëpp dinañ mën a ànd joxante la ko liggéey pour njëriñu senegal waaye waxtu bi loolu di am am na suñu mbokk yoo xamante ne ay dirigeants sportifs lañu yàlla jël leen mën nañ ci jël ko tudd moom Mamadou Diallo waaye mën nañ jël ku ràññeeku muy président Sport Boule Gazan Ezidine ñu tudd gën ko xam ci gaz yàlla jël ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko añan na xare ko ñëpp ñi nga xamante ne génn nañu àdduna ñi gaañu yàlla eh, wëral leen kilifa réew mi jël décision ñu alléger li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi waaye ñu jëm ci le 20 le 19 à minuit muy jeexal li ñuy tuddee état d'urgence wala état de catastrophe bi nga xamante ne moom moo fi am loolu bu jeexee yeneen i taxawaay dafa war a am taxawaay bi war a am mooy dinañu fexe ba nga xamante ne nit ñi dinañu mën a dellu nag seetaan yi li nga xamante mooy jongante yi wàllu tàggat yaram loolu bu ñu ko waxee làmb ji dina ci gis boppam mais yeneen discipline yi dinañ ci gis seen bopp waaye li ñuy ñaan kilifa yi ñi nga xamante ne ay kilifa lañ te ñu jiitee tàggat yaram ci réew mi comité olympique ak fédération yi dinañu gën a waxtaan ba ñu xool fépp fu ay nit ñu bare di daje lu ñu baree bare it war nañoo li nga xamante observer mesure barrière yi mooy il faut ñuy dàndante ci mètre lu mu tuuti tuuti il faut ñu takk masque il faut ñu am li ñuy raxasee loxo yi di xool température yi loolu bu ñu ko defee defe naa ne làmb dana mën a am leneen dana mën a am ci anam yi nga xamante ne noonu la daan amee te lor du ci am loolu lu am am solo la ñu koy souligner di gërëm nag ñi nga xamante ne commencé woon nañ huis clos yi te di ko def ci anam bi ñu ko waxee woon loolu lépp nag dinañ ko gën a càmbar fii ak le 19 su ko defee nit ñi mën a dellu ci jàmm dellu ci li nga xamante ne mooy jongante leneen li nga xamante ne bëgg nañu ko wax mooy ci wàllu tàggat yaram Sénégal tey ci waxtu wi ñu toll taxaw na ci place boo xamante ne ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey mosu faa taxaw ci wàllu football. tey jii ñuy wax ak yéen président fédération sénégalaise de football muy maître Augustin Senghor taxaw na nekk ci li nga xamante ne moom mooy premier vice président mooy deuxième personnalité di football africain loolu nag bu amee. ci xereñu fédération la ci profiilu président Senghor la waaye ci jàppandalu président de la république président Macky Sall jox instruction gouvernement am jàppale ko ne ko na dem ci compétition yooyu waaye deme ci pour defar pour dajale bañ ci dem pour que bu paree mu am ay cassure bañu ciy doxit xalaat nañu ci ci fulla ak fayda ak xarañ bañ demee ba xamante ne dañu war a waxtaan nangu nañ waxtaan wi bañ waxtaanee li ñu ci am di nga gis nag ñu jàpp ne comme président lañ bëggoon te yegguñu fa mun nañ ko gisee mun nañ leen ko nangul waaye li ñu war a jàpp mooy fu dara newul boo fa defee dara war ngaa bég ci la fa def tey c'est la première fois Sénégal di nekk candidat pour jiite kuréel gi nga xam ne mooy gérer football bi ci Afrique ci xeex bi ñu njëkk a sumb ñooy deuxième personnalité loolu lu ama am solo la loo xamante ne c'est une grande première pour le football sénégalais loolu nag li ko waral mooy liggéey bu rëy bi fédération di def ci réew mi ak fi mu yóbbu football mais aussi jàppandalu réew mi surtout ku ko jiite le président de la république Macky kon dañuy féliciter Augustin Senghor di féliciter l'ensemble des membres de la fédération di féliciter l'ensemble des sportifs la presse sportive ak ñëpp ñi ci jàpp parce que candidature u Sénégal la woon defe naa ne ku tekkiwul lu bari bu ngeen demee ci négociation duñ la jox dayo bu toll ni nga xamante ne moom la président Augustin Senghor yore fii ñu toll li nga xamante ne nag mën nañ ko ci teg te mu am solo moom mooy euh, fii ñu jëm fii ñu jëm yolomal am na pour que nit ñi dellu ci li nga xamante ne mooy infrastructure sportive waaye nag du doon ñaax fàttali lay doon parce que ñi jiite sportu Sénégal man ministre des sports am naa mbégte ci ñoom acteurs sportifs yi am naa mbégte ci ñoom parce que taxawaay bi ñu wone ci jafe-jafe parce que nit balaa ngay xam tolluwaayam jafe-jafe am jafe-jafe bi mu amee kenn footballatul kenn defatul activité sportive kenn bëreetul mais kenn caalitul ñëpp taxaw nañu ànd ak réew mi ànd ak njiiti réew mi ak gouvernement xeex li nga xamante ne mooy pandémie bi ba tey jii ñuy am yaakaar parce que vaccination ñëw na te ñuy am yaakaar mu gën a wàcc loolu nag bu fekkee ne am na dafay jaadu ñu sant acteur sportifs yi ak mouvement associatif ci seen taxawaay muy ñëpp nag waaye làmb ji aussi nga xamante ne ñoom rek a commencé gul li nga xamante ne mooy compétition ñooñu tamit dinañ leen sant parce que li métti bi muy njëkkee ñëw samedi bañ jël décision ca dimanche ba am na promoteur bu waroon tëgg te tëggul mais caalituñ dañ jël seen alal andi jël seen i matériel andi ba pare dugg ci sensibilisation tey nag buñ demee ba ñu xam ne war nañoo mën a delluwaat ci làmb ji arène ba peut-être duñ fa mën a def 15000 places waaye war nañ faa mën a def peut-être 8000 places loolu day nekk lu am solo moo war leen cee sant nag sant leen ci seen taxawaay mais sant leen ci seen woote pour jàmm am ci réew mi kon bëgg naa daal bés bi di ajuma ñu am ci ndam lu am solo ci taxawaayu football ci Afrique am ci lu am solo it ci li nga xamante ne mooy doxalin réew mi ñu am ci it espoir bu juddu ci ñun ñëpp li ñu namm ngeen namm ko yenn presse sportive bi dellu ci jongante yi fekk fa kilifa yi muy am ambiance defe naa ne bu ñu toogee tey yàlla won nañu ne àdduna ay neex la ak ay naqari li ñu njëkkee mooy perdre kilifa goo xamante ne jóge na fi muy nekkoon ku am solo ci gestion sport gul ci ci ci ki même bi mu demee ñu ciy wax tey am nañu pal feneen boo xamante ne kon dañu war a am lecture philosophique de liy xew ci réew mi te ñu xam ne loo jëndee jàmm jàmm jàmm ko gën jàmm la war a ñaan ci réew mi suñ te mouvement sportif bi vertu yi ñu xam ci sportif mooy jàmm nañ joxante loxo liggéey pour développer suñu sport loolu laa bëggoon a wax maa ngi leen di sant leen gërëm public bi mën nañu commencé waat ñëw donc tey làmb huis clos teg nañ ko ci suuf te man musuma si d'accord fu ma toog wax naa ni man làmb huis clos ñaari ponkal yu takk ngemb taxaw ci géew kenn seetaanu leen kenn tàccewu leen loolu du saf xorom du saf suukar donc tey dañuy sant yàlla bi nga xamee ni état d'urgence sanitaire bi levé nañu ko ba activité sportive yi dinañu mun a am public euh, football bi également c'est la même chose basket bi c'est la même chose donc toutes les activités sportives dinañ ko mun def avec la présence du public mais aussi leneen li nga xam ne ministre yokk na ko ci mooy ñiy organiser nañu dëppoo ak li nga xam ni moom la euh, waa kër docteur santaane mooy ñuy takk masque yi di raxasu di respecter distanciation sociale bi je pense que loolu euh, tekki na euh, nii rek tey activités yi jolliwaat na dooraat na bàyyiwaat nañu nit ñi ci seen teyu bakkan parce que loolu tey moom la askan bi soxla woon boo gisee manifestation yi am barki dem euh, c'est pas Sonko qui est l'élément euh, mais dafa au-delà de Sonko dañu war a jàng ne que nit ñi ñoom ñoo am euh, xëy na lu leen métti ndax état d'urgence bi dafa mujj métti ci askan bi ñu bëri amatuñu la ñu doon am ci koom muy yow muy man ku ci nekk la nga daan am amatoo ko la nga mënoon mënatoo ko euh, ba pare euh, couvre-feu bi ñëw gën a yokk loolu yëpp donc yooyu frustration yooyu askan bi daje moom moo gën a yokk tey ampleur li nga xam ne xew na fi barki demb kon alhamdulilah bi nga xamee ni autorités yi comprendre nañu ni instant bi war nañu bàyyi askan bi ñu delluwaat ci seen i activité parce que loolu mooy li nga xam ne mooy suqali koom-koomu réew mi mais mooy indi dal également ci réew mi c'est un signal fort et le président de la république wax na ko euh, moom ci boppam nee na dégg naa li ngeen ma wax donc message bi ma euh, jeunesse bi envoyé décrypté naa ko donc ci décrypté ci décrypté bi mu décrypté message bi ko jeunesse bi envoyé à travers les manifestations ci le président de la république xam ne nit ñi dañoo sonn ci tëju bi nit ñi dañoo fatt ci mm, teel a tëdd bi nit ñi dañoo fatt ci bañ a def li nga xam ni mooy seen liggéey muy seen activité moo xam làmb la ak leneen donc loolu je pense que le président a perçu le message de la jeunesse jeunesse bi dañu soxla tey ubbeeku dañu soxla dellu ci seen i activité parce que tey bu fekkee dañoo topp mbas mi rek topp coronavirus bi je pense que ñun ñëpp dinañu dem ba leneen rey ñu ludul corona. ñuy rey ludul corona mooy xiif ba dee wala ñàkk ba dee wala mer ba dee te mer xajul ci kenn euh, boo gisee mbëkk mbëkk mi fi amoon ak ampleur bi mu jëloon loolu c'était un signal malheureusement waaw kuy dugg géej ak risque yi ci am yëpp ragalul xeex parce que géej moo gën a garaaw taxaw fii di sànnante ay xeer ak euh, ak ak ak force nit ñi bu ñu demee bay songu géej gi moment boobu rek euh, autorités yi waroon nañu xam ne alerte am na parce que boobu la woon alerte bu njëkk bi malheureusement dañu tànqamlu bi ñu tànqamloo ba nit ñi dem ba sës euh, tey Sonko moo nekk l'élément déclencheur mais au-delà de de Sonko nit ñi dañu wane seen frustration wane seen mer et je pense que tey jii autorités yi heureusement bi ñu comprendre ni jot na ñu yeewi askan wi ku nekk delluwaat ci say activités. Euh, Malick keroog ci communication bi mu def France 24 effectivement dafa juum ci communication bi parce que aussi euh, li xew dama ko wax si benn rajo bu fekkee ni danga ko bëgg a ak li làmb ji tëj. mbër yi di entraîner nekk ci écurie yi amuñu combat nga yaakaar ni ñoo ñooñu ñoom ñoo génnoon dañoo bokk ci parce que c'est pas c'est, c'est pas des gens à part à part c'est des gens à part ñi nga xam ne dañu bokk ci société bi du ñu nga xamante ni ay nit la ñu à part les lutteurs ak ak ak ak ak le monde de la lutte dañu bokk ci société bi bokk ci état bi frustration bi euh, jaaykatu restaurant bi am frustration bi borom hôtel bi am frustration bi jaaykatu ndambe ba nekk ca koñ ba am moom la mbër yi am donc ça veut dire que c'est une frustration générale mais boo stigmatiser wax ne mbër yi ñoom ñoo génn loolu njuumte la de la part du ministre et je pense que il l'a compris parce que communication dafa doy waar am na noo koy waxee rek di nga euh, di nga di nga di nga laal honneuru nit te ni mu waxee il a touché l'orgueil et l'honorabilité du monde de la lutte loolu moo tax réaction ak tir groupé yooyu am ci mais au-delà de ça am na jàngat bu positif bu ma ci am moo di nii làmb am na fu mu lu mu représenté ci réew mi am na lu mu représenté ci Sénégal ba ñu yaakaar ni bu làmb doxul ñuy toj ñoom ñoom ñoom ñoom waa làmb la hmm. kon ça veut dire que làmb diis na am na lu mu représenté et il semblerait que ni sax même en conseil de ministres le, le président avait demandé wax na ne na ñu na nañu commencé waat làmb ji parce que lamb facteur de régulation sociale lamb bu amee tey nga ni Modou mooy bëre ak Ama Baldé pendant juróom-benn weer nit ñi du ñu tal lu dul loolu bu bës baa ba ñu jàkkaarloo ci géew bi boo sànnee ba mbattu ci arène bi mu mu mu takk waaye boo ko sànnee ci mbett mi mbedd mi mu ni tas toj parce que kenn du tox kenn du dox parce que loolu dafa bokk ci liy dundal euh, Sénégal dafa bokk ci liy dundal le monde ñu nekk ci bitim muy waa diaspora parce que làmb dafa am lu nga xam ne moom la représenté ci biir réew mi représenté ko ci Sénégal kon nañu jox cër ak lu làmb waaw bu ñu jël lu bon di leen ko sànni le ministre def na erreur de communication je pense que il n'est jamais trop tard pour rectifier mais li mu wax noonu am na lu ci positif lu nga xam ne ñun waa làmb war nañ ko mën a jël pour fulandi ko